mbokk yi déglu rafetlu seen ànd ak programme Leral TV 12 minutes chrono dellu si waat nag comme ni ngeen koy faral di xaare euh, ngoon bu jot gannaaw xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma euh, dooree ko euh, tey nag ak ni ma leen ko waxee saa su nekk dañuy amal gan tey nag ñu dalal gan bu spécial boo xamante ne ca ndar la jóge ngir ñëw daal di teewe bi lépp émission am ndar nag boo fa demee moom lii day daal di dem ci teraanga ndar waaye ñun ñoo koy daral tey jile amadu Adama kan Diallo moom la ñuy dalal am na rek ay casquettes yu bari dañ ci ñëw ah, ci ndorteel bi gën leen ko ah, daal di ah, firndeel Adama ñu ngi lay nuyu di la dalal am mbégte bu baax daal di lay dalal suñu plateau. voilà merci beaucoup euh, monsieur Senghor euh, si dalal bi ma dalal leeral TV euh, ngeen di def liggéey bu extraordinaire fii si réew mi ak bitim réew di nuyu ñu ni seetaan ñëpp rawatina waa Saint-Louis rawatina. waa ABS 2024 notre mentor euh, monsieur Abdoulaye Sylla mm. et notre coordinateur national euh, Assane Sylla euh, ak euh, Sénégal gi yëpp ak tous les membres de l'ABS du Sénégal et international. d'accord ABS Sénégal Abdoulaye Sylla atum 2024 moom bokk na ci jongante yu 3 atum 2024 foofee la ñuy daal di tàmbale jongante boobee jamono ji gis nañu benn équipe boo xamante ni euh, waa euh, maanaam ay opposants africains lañ ñëw ci biir réew bu Sénégal ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo way ku jéggi waxtaan ak société civile waxtaan ak gouvernement bi ngir jongante yu 3 bi ñuy dem mu nekk élection libre transparente mais élection boo xamante ne euh, ku nekk dina ci mën a gis boppam est-ce que jàpp nga ne tey jii maanaam jotoon na ngir Sénégal ñu foofu fa nga xamante ne démocratie réewu Sénégal fi la toll waaw jërëjëf si question mu nekk question bu bu am solo euh, je pense que démocratie Sénégal ñëpp xam nañu dafa am problème euh, problème bi nga xam ni euh, problème bu doy waar la euh, problème bi nga xam ñëpp a ngi koy mettre du parce que boo nekkee si nguur di liggéey yore réew te réew yàlla moo la koy jox dafa am nooy liggéeyee yamale ñëpp bu newee ba ñëpp bàyyi ñu xel yaa a problème. Hmm. Euh, je pense que man dafa am leen loo xam ne dama ko gëm si kër àdduna euh, je pense que les hommes politiques toujours dañuy fàtte suñu borom dañuy fàtte ni yàlla gis na xam na déedéet yow di nga am sa pexe pour jéem nan ngay yàqee la démocratie yàlla di lay bàyyi ngay def mais nga dem ba à la yàlla bi la joxoon prise bi mu xëcc ko nangu ko jox ko keneen je pense que la démocratie la démocratie Sénégal dafa des lu bëri bëri bëri bëri. dafa des wala dafa dellu ginnaaw. dafa dellu ginnaaw lu bëri bëri. ñëpp xam nañ ko. lan mooy lan mooy critères yi tax nga ne démocratie dafa génn. voilà parce que tey suñu justice. tey boo bokkee si pouvoir loo neex defal. attention loo neex waxal. Hmm. te da ngay gis ni yaa ngi nekk si pouvoir yow rek yaa am droit circuler. ka moo nekk ci pouvoir di def lu ko neex. ka nekk pouvoir di circuler mais le benn le parti de Benno Bokk Yaakaar. ñoom ñoo nekk si pouvoir bi c' est la réalité. oui mais est ce que def tax nañu def lu leen neex. ah bien sûr que parce que la justice est là pour tout le monde. mais la justice est là pour tout le monde na waroon nekk mais la justice est là pour benn parti te loolu mais je pense que ça va changer incha allah c' est dans quatre mois lépp ay changé pour ñu dellu si dëgg ak si liggéey réew mi ak si justice bu leer justice bi nga xam ni. amul kii moo am wala kii moo ñàkk wala kii moo nekk fii wala kii moo nekk fii ñëpp la ñuy yemal. Hmm. pour benn intérêt pour la démocratie de notre pays ñëw fa mu ñëw incha allah. d' accord est ce que xalaat jamono ji yéen ñi nga xamante ne ànd ak Abdoulaye Sylla on va venir ci li nga xam moom mooy taxawaayam ci li nga xam moom mooy gis-gisam ci réew bu Sénégal mais est ce que yéen a ngi xalaat xëy na euh, maanaam ñenn ñi nu ñuy xalaat di am xel ñaar ci élection présidentielle dina am am déet wala dañ koy dàq am déet. mais bu tax du am dina am dans trois mois. ça veut dire que euh, monsieur Senghor élection dafa war a am si ni ñu ko tëdde si calendrier républicain ça veut dire que ñay xalaat ñooñu je pense que pareewuñu pour dem élection ñi xalaat ni élection dafa war a am mooy ñi nga xam ne dañoo pare. Est-ce que vous êtes prêt? Ah bien sûr que oui. Abdoulaye Sylla est prêt pour aller ah, à l'élection. Oui, à 100%. En février 2024. À 100%, on le 25 on, on va gagner les élections inchallah. changement am si réew mi yeneen casquette yu bees am si réew mi parce que depuis 1960 sont les mêmes têtes ñooy diriger le Sénégal depuis 1960 ba Senghor jëlee le pouvoir am na ne newoon si Senghor ba tey ñu ngi si nguuru Macky Sall bi. Hmm. il faut que changement am des hommes de valeur ñi nga xam ni dañu tabax réew xam. est-ce que changement boobu jàpp nga ne Abdoulaye na ko indi. bien sûr je m'explique je m'explique. allez-y voilà merci beaucoup monsieur Senghor Abdoulaye Sylla il a créé une entreprise bu tudd Ecotra depuis vingt ans. oui Ecotra la ñëpp xam. mais il a plusieurs entreprises de quinze d' entreprises tey mi ngi jël lu mat deux mille personnes ñuy liggéey si biir entreprise am nekk ay jeunes sénégal tey chaque fin du mois mi ngi fay plus de cinq cent millions un milliard de salaire nekk Sénégal. mais Adama est-ce que loolu bokk na ak yor réew. attends ah, bien sûr que oui Donald Trump. c'est un grand homme d'affaires respecté aux États-Unis nekkoon na président aux États-Unis mais Donald Trump n'est pas Abdoulaye Sylla mais Donald Trump n'est pas Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla tey xam bi ko yàlla dégg tey si si si si wàllu économie si wàllu samp si wàllu taxawaay ma yeggale foofu rek si wàllu taxawaay hmm. am na sañ-sañ laaj réew loolu laa lay expliquer ku am plus de quinze entreprises doomu réew mi si liggéey sa parc automobile bi ngay liggéey sa ay sa liggéey si tëli yeeg yooyu plus de soixante-dix milliards kooku tey si la xalaat créé ak ay chef d'entreprise club C50 PN. parlons de C50 bi ngay wax. noonu c'est important club c bi nga xam moo xew si jamono ñëpp a ngi koy wax léegi. tout le monde pour jàppale Sénégal yi pour jàppale les entreprises parce que entreprise yëpp da doon nërmeel da parce que suñu état yi bu ñu doon jàppale entreprise yi nekk fii au niveau du Sénégal ndaw yi duñu jàll gaal yi di dem. donc jàpp nga ne club C50 bi bu ñu. ko jàppalee ça va régler problème ça va régler le problème parce que état mi doon calcul ay pour cent 20 pour cent les entreprises yi nekk fii Abdoulaye Sylla ak équipe am ak les chefs d' entreprise ni tëggee. Hmm. Sénégal ñëpp di si adhéré. entreprises yi adhéré si les jeunes entrepreneurs adhéré si adhéré euh, euh, bokk si tey jii mu wër partout dans le Sénégal les 46 départements. les 500 et quelques communes. taxawal les clubs C50 man je le coordinateur département C50 de Saint-Louis. déjà C50 lan la def Saint-Louis. defar pour xool na ñuy booster l'emploi et l'habilité et l'emploi au niveau de la jeune du département de Saint-Louis. est-ce que yéen a c'est quoi le problème de la jeunesse bien sûr que oui. damay may wax ni club c'est c'est c'est intéressant c'est important. loolu dañ ko taxawlee ñëpp ngi si adhéré parce que mënuñu nekk fii réew mi yaa ngi dégg ñuy jël suñu entreprise yi. Hmm. ñu leen jox ay 20 pour cent. le combat c' est 50 pour cent kifti kifti. bien même plus. 50 fii wala plus. Hmm. waa bitim réew bu ñu ñëwee xëy mu mën leen jox mais ñëpp ñu jox leen que ñi nga xam ñoom ñoo nekk fii au niveau du Sénégal. loolu bu ñu leen ko joxee daan si créer ay emploi réew mi dina développé ndaw yi ñu am liggéey kenn du dootul jàllati gaal di dem. tey ba mu waree loolu tey ji Sénégalais yi gis xalaatam gis léppam ñi nekk si club bi di wax ni Abdoulaye Sylla yow nañu soxla pour nga nekk candidat en 2024 kilifa diine di wax les femmes di wax. Hmm. les jeunes di wax entreprise yi di wax ñëpp di wax mu ni tekk di leen di déglu boo demee ba ñëpp taxaw ñaan ko ni ko kaay nga nekk candidat si biir si weeru gàmmu gi na nangu accepté nekk candidat. donc candidature am demande la. demande sociale au niveau des femmes. au niveau des jeunes au niveau des entreprises des petites moyennes entreprises. tey loolu yàlla mi ngi suturaal ba Sénégal gi yëpp ak ñi nekk bitim réew yëpp nangu nañu di wax nañ ko ni que kaay ne Kanda accepté na loolu yàlla mi ngi suturaal si organisation bi si lépp ba tey jii gis nañu ñëpp a ngi wax si moom. oui parce que c'est le meilleur profil pour. liñ ko jox xam-xam liñ ko jox le meilleur profil moom Adama le meilleur profil moom euh, du du yow pour Adama Kane Adama Kane Diallo. Abdoulaye Sylla mooy le meilleur profil. ah bien le meilleur profil non tu verras tu verras monsieur Sène tu la. c'est le meilleur profil c'est le meilleur candidat pour le Sénégal pour l'intérêt du Sénégal. pour l'intérêt des femmes. pour l'intérêt des entreprises pour l'intérêt des petites moyennes entreprises du Sénégal. ça c'est l'avis d'Abdoulaye euh, Kane Diallo encore une fois je le précise mais euh, ba tey ci euh, abad kooku nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Sylla que yow yaay nekk ki nga xam ne moom mooy wàllu parrainage foofee ca te pour doon candidat il faut d'abord passer le filtre du parrainage est-ce que euh, parrainage bi fan la tollu fi mu nii jamono ji. nous touchons du bois. alhamdulilah rabbil alamin euh, Sénégal yi maa ngi soogaa di xam ni cofee bi ñu am si Abdoulaye Sylla parce que foo dem. Hmm. ngay wax ak moom. def la présentation de Abdoulaye Sylla. oui même bu ñu ko xamul dégg nañ ko ak li mu def si réew mi si côté emploi si côté social si côté jàppale kilifa diine yi ba ñëpp demandé ko ñëwal. ñëpp a koy parrainé ba fii may waxante ak yow. pourcentage bi ñu demandé si parrainage romb nañ ko dix fois dans toutes les régions du Sénégal. donc dans toutes les communes du Sénégal dans tous les départements du Sénégal hmm. nous touchons du bois. seen xel dal na suñu xel dal na à cent pour cent pour ñu matal suñu parrain yi bala la ñu état bi laaj yoon laaj. dépassé nañ ko dix fois. d' accord loolu benn ponk la loolu dalal na xel ngir rek Abdoulaye Sylla mën a doon candidat la candidature eh, ci jongante njiitu réew bi ñu dëgmal fi ñuy jeexalee eh, Amadou Kane Diallo eh, mooy taxawaay bi nga xamante ne kujje gi ci biir réew bu Sénégal am nañ ko jamono ji gis nañu ñu teg benn maanaam organisation bu ñu duppee FIT est ce que Abdoulaye Sylla bokk na ci fanweeri candidat yi nga xamante ne nee nañu bokk nañu ci kuréel boobu ngir xeex ba daal régime bi du mën a def lépp loo xamante ne jëm na ci nasaxal élection yi ñu dëgmal Abdoulaye Sylla si boppam dafa am démarche am c'est quoi démarche boobu oui na Sénégalais bëgg changement nañu bëgg jël politiciens yi teg leen fële politiciens yi day métier teg ko fële indi des gens yi nga xam ni dañu am lu ñu wane si réew dañu tabax réew mi dañu bokk si ñu tabax réew mi hmm. dañu def des actions dañu am lu ñu prouver si mi am entreprise demuñu bitim réew indi ko Sénégal jàppale ndaw yi si wàllu employabilité jàppale ndaw yi si wàllu emploi hmm. encadrer leen comprendre que dimbale leen kon ñu mel noonu lañ war a jox réew mi ñi nga xam ne luy demande réew mi. Hmm. maanaam euh, am nañ si droit mais tamit Sénégal pour mu développer dañ koy jox ñi nga xam ni tey ji seen xel dafa màcc si ni ñuy créer emploi te yàlla def na ni le président Abdoulaye Sylla hmm. créateur d'emploi la loolu na ko yàlla cërale kon tey ku mel noonu du ma ni dafa bokk si pou dafa bokk si pouvoir dafa bokk si opposition dañu am suñu démarche bu bees bi nga xam ne sénégalais démarche bu bees boobu la ñu bëgg gisaat si des hommes de valeur des hommes de qualité des hommes yi nga xam dañoo am une vision très claire. Hmm. des hommes yi nga xam dañoo am une ambition pour le pour le yi nga xam ne dañu am xam-xam ci wàllu économie. am xam-xam ci wàllu nan la ñuy tëggee ndaw bu am liggéey. te gëm naa ne tey Abdoulaye Sylla bu nekkee président de la République. ndaw yi di dem géej di jaar ci géej gi di dem. dootuñu demat est-ce que Saint-Louis moo tax ñun tey jii tey jii sénégale sénégalais dañu dañu doy la ci les politiciens parce que politiciens yi. depuis 1960 ñu jiite Sénégal. oui socialiste libéralisme. oui foog tamit 2024 bi mu amaat yeneen tête yu bees ñi nga xam ne ñu jub lañu. ñu sérieux lañu ñu am lu ñu def si réew ñu mel noonu la Sénégalais soxla moom na jeunesse bi soxla moom na famille soxla moom na les entreprises soxla pour au moins tey Sénégal dafa am naaj. dafa am géej am dex. oui am or. oui am fer. am gaz li mu am bëri na waaw am pétrole. oui kon bu ñu joxee ku mel ne Abdoulaye Sylla yooyu yëpp dina ko réaliser. oui en vers les populations sénégalaises. d'accord la dernière question yi am liggéey. la toute jàppale seen bopp jàppale seen waa. la toute dernière question Amadou Kane Diallo est-ce que jàpp nga ne Abdoulaye Sylla jamono ji moom mooy ki gën ci Sénégal nga ne waaw mais est-ce que Amadou Kane Diallo Abdoulaye Sylla émigration irrégulière bi nga xamante ne mu ngi faat ay doomu aadama rawatina ndaw ñi ñëw na ca Saint-Louis quand on Saint-Louis point de départ la euh, ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy dem wutali Barça wala Barça. je suis le coordinateur départemental club C50 c'est même pas deux jours j'ai organisé une assemblée générale avec le c dans un an benn ndaw dootul demati. promesse ou bien c'est réalisable lu teg parce que moom si boppam. ci yan base ngeen ko tegee. très bien si yan base la formation et encadrement. et emploi. mais gouvernement bi teg na fi 3FPT tourne teg na fi yeneen ak yeneen yooyu yëpp ci ay formation ak encadrement la mais gis nañu se bi fi am. dem leen ni la Abdoulaye la du ñooñu. Abdoulaye Sylla. oui ku yàlla baaxee la mu am xam-xam moo tax tey mu xalaat. waaw club c cinquante bi nga xam mooy sauver ndaw réewam mooy sauver les femmes te bu demee fa si weer yii di ñëw dina génne si poche am 50 milliards bi nga xam da koy dugal si banque pour ñu financer les jeunes pour ñu financer les femmes. te du am benn intérêt lépp moo koy gànt bu dee ba nekk président de la république il va mettre cinq cent milliards pour des pour pour de pour pour pour ay financement ay ndaw ak ay femmes te du am intérêt voilà une vision balaa ñu lay jox daañ la former daañ la encadre daan la wan yoon daan la gëstu teg la si yoon ba loolu ñu lay jox hmm. bu loo ko joxee fi léegi un an nga créer nga créer benn recherche. d'accord envers vous créer ay emploi créer loo xam ni yow di nga bokk si ñuy tabax sa réew ñuy tabax sa dëkk parce que commune bu nekk si Ndar daañu jéem a xeex ni tous les maires du Sénégal dañuy jox marché yi dañ jox de entreprises locales au niveau tamit national état bi di jox tamit les entreprises locales yi nekk fii si réew mi cinquante pour cent wala plus pour benn intérêt pour intérêt du Sénégal pour économie bi reste si réew mi ndaw yi du ñu dem toog si réew mi liggéey comprendre nga lépp recherche bi fi am ñu exploité ko pour au moins ndaw dootul xalaatati day génn loolu moo suñu vision on a un très bon programme un programme ré ré réalisable. et réaliste programme on en reparlera dinañu gën a am temps euh, Amadou Kane euh, Adama Kane euh, ngir ñu waxtaanee li nga xam moo jëm ci programme mu kooku di Abdoulaye Sylla avec bien entendu peut-être sans doute Birahim Touré bi nga xamante ne xam ngeen ko ak émission boobu mu duppee nag moi candidat on aura l'occasion encore une fois de parler surtout avec ce débat programmatique bi nga xamante ne Sénégal citoyen yëpp ñu ngi koy réclamer bien entendu muy àdd kooku di Abdoulaye ñi nga xamante ne samp nañu seen dënd laaj réew foofu lañ koy daal di jeexalee gàtt na waaye nag comme ñu koy waxee li duuf ci euh, nag bi yëpp xëjul ci ñi jaadama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci jóge bi nga jóge ndar am naa ne bu fa demee nag ndar moom euh, doo ñu fi bàyyi ok Adama merci allez beaucoup à vous aussi très euh, chers fidèles téléspectatrices et bon bonne suite des programmes altine ak jàmm